daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax da ngeen am taw dara ci luñ ko may xaas la ñu am ñoom ñun béykat bi nekk nekk ci liggéey xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee ñeent te ngeen mënu ci tàgguwaay rek am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen ngeen am. waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu su defee kon mu mel ni.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 ورضي الله عن شيخ الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتخى المكي حفظه الله ورحاه وأيده فينا ونصره وعتم ما نويته في سر وعلن ببركة شيخنا وقدوتنا وسيلتنا إلى ربنا تعالى أبي المهامد أحمد ابن محمد ابن حبيب الله الشيخ القديم قال له الله ما اختار له السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakaatuhu mbokk yi jullit yu tedd yi gox yu fasantikoo yi ñuy bàyyi xel li ñu topp ci biir mi ba bitim réew noo ngi leen di boole nuyoo bi ni yàlla boole tamu doy nuyoo walis bépp nuyoo ñi tibbee ko sunu xol jëmee ko seen jëmm yi tedd yi te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bañ sant yàlla julli ci sangub sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa suñ borom dolli ko kàttanal dolli ko yàggal ba naal yi mu naal ci liggéeyal ko suñ tubaa sunu borom woyefalal ko naal yooyu yëpp ba mën ko yeggali di ñaan sunu borom di dotti waa mi ci waxtu ne ci aseexul xadim mbokk yi tey ji ñaam pas-pas parce que ni leeral xasid ak Tuuba gi tudd muqaddamatu suxra anasriya fi salaati wa taslimi ala xayril bariya jàngoon ngeen ci gannaaw muqaddamatul xidma fi salaati ala nabi rahma jàng nañ muqaddamatul kubra ba tey waaye dafa am bu ñuy wax muqaddamatu suxra ak nasriya nasriya mooy wisar ba tey wisar comme xitma rek a ak kubra waaye bii dafa tudd fii salaati wa taslima ala xayril bariya mais am na beneen muqaddamatul xidma fii salaati ala nabi rahma suxra ba tey am na bu mel noonu am na beneen boo xam ne muqaddamatu muqaddamatu suxra waaye an nasmiya wëy la waaye fil xidmati li xayril bariyati bu moom la def bii nag muqaddamatu suxra an nasriya wisaar la fii salaati wa taslim ala xëyri bariya bee di muqaddamatu suxra an nasmiya wëy la fil xidmati li xëyril bariya am na itam ba tey muqaddamatul xidma fii salaati ala nabi rahma as suxra boo xam ne bokk na muqaddamatul xidma bi ñu doon jàng ak kubra bi moom daal waxoon ne sëñ bi xasida goo gis mu taalif rek am na doom wala am na rakk wala am na mag wala am na lax noonu nga koy toppee maanaam xasida gu ne daal am na siix am na koo xam ne dañ naan mooy siix ndooram nga xam ne toll na ni moom wala ñu naan la bii kat bu ndawam bi la mooy doomam wala mooy rakam yu mel noonu xasida goo jàng ci xasida Sëñ Tuubaa rek dégg nga am na seexandoor bii ñu bëgg a firi nag mooy muqaddamatu suxra an nasira fi salaati wa taslima ala xiril bariya moom it dafay jëm rek ci julli ak sëlmal ci yonent bii di ngën ci mi def sallallahu alayhi wasallam da nga ci fekk salaat yoo xam ne lu mel ni ñi miin xasida gu mel ni kansul muhtadin da nga ci fekk li ëpp ci xasida googu da nga ci biir xasida dafa mel ni rek lu eh, mel ni duru sami nag kansul muxtadina catégorie boobu lu mel ni fatul xafaar da nga fekk mu dugalaat leen fii salaatu yu nekk foofu yu ci ëpp da nga ko fekkaat ci bii dégg nga nga xam ne bii dafa gën a matale mooy muqaddamatu suxra an nasriya fi salaati ala xayril bariya lépp jëm ci julli ci bi ak ñaan comme ni mu ko baaxoo di def rek saa bu jullee ci yonente bi sallallahu alayhi di wane waale ci biir xasida gi ngëneelu julli ci yonent bi kii julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngëneel ci nekk yépp dana ko junjaale isaare waale ko ci biir waaye ñaan yu kawe dégg nga yoo xam ne kenn tu natt kenn mënu ko xiyaas di ko natt danga ko fekk ci biir xasida gi waaye li muy njëkk yépp mooy xadis yi nga xam ne yonent bi day wax julli leen ci man wala ki gën nay dëgg mooy ku dul julli ci man xadis yooyu mu dajale ko su ko defee saa boo waxee allahumma salli wala na muhammadin isaara xadis ba wane ne yonent bi wax na ab xadis ne nii la ko waxee lu mel ni albaqilu kulal buqli allati sukutu inda fa lam yusalli alayya nga xam ne sëriñ bi waxuma la rek muy ñaan waaye day jël xadis yi di ci julli ci yonent bi xadis yi lay jël ba noppi di ci julli ci yonent bi xeeti julli nii ci moom rek nga koy gisee doo gis yar ci keneen nga xam ne waxuma la rek ñaani boppam yi mu ciy ñaan waaye day jéy wax yonent te wax yonent bi yëpp wax yonent bi salaas yëpp gànjulu sañ Tuubaa ne li man ax jalal yaaxootu maakaan yel fasu na rasulullah yi lam daan génnee ci làmmiñ wa moo gàccal na ci rafet kon wax yonent bi rafet gi mu rafet moo tax sëñ bi da da koy indi ba noppi su ko defee nag wax yonent boobu lay jël di julli ci yonent bi bu indee wax ja julli ci yonent bi ñaan soxlaam julli goo xam ne dafay ànd koog sëlmal kon lii mooy muqaddamatu suxra an nasriya fi salaati wa taslimi ala xayril bariya muqaddamatu suxra mooy téere bi ñu tuddee muqaddamatu suxra mooy lu jiital ci julli ci bi ci téere bu gën a néew am na leneen lu ñuy ñamali ci kanam ngir mu war a dikk loo xamee ne mooy gën a bari téere bi ëpp ko max naa gën koo yaatu muqaddamatu suxra lii mooy lu ñu jiital ci julli ci bi ci téere bi gën a ndaw an nasira ñi def ko ci wiisar wiisar mooy loo xamee ne du am woy nga xamee ne mooy gën a neex a dégg waxoon naa la wiisar mooy gën a neex a dégg waaye nag woy moo gën a neex a mokkal xasida borom tubaay nag woy cëpp ay jes boog mu waaxi boog muqadamaatu anam boobu dafa bëgg ñi di ko mokkal waaye gis nga ne lu mel ni muqadamatul xidma am na ñu koy mokkal waaye man nga ne ñuy mokkal lu mel ne mu waaxi bu jes bu mooy ëpp dégg nga lu rut borom pas-pas ñi nga xam ne dañ koo dëkkoo te saxoo ko rek ñoo ko mën a mokkal waaye nag sar moom moom ngay gën a mën a dégg gën a comprendre max naa mi waaye nag bu dee woy moom moom ngay gën a neex a mokkal boo koy mokkal dafay neex a mokkal moo tax sëñ bi li ëpp bokk na ci mbootam léppam woy la rawatina xasida yi mel ni da ko yóbbu ci wàllu rajas li ci ëpp da gis ne da koy tabaarakallaahu yëpp da ko def ci baxru rajas li ëpp ci ay woyam da ngay fekk muy baxru rajas donte baxru yëpp dana ci tëgg muqaddamatu suxra mooy lu ñu jiital ci julli ci yonent bi muy téere bi gën a ndaw annasira ñi def ko ci anamug wisar mooy loo xam ne nekkul woy bu doon woy dafa am fu muy daane fii salaat ñi def ko ci anam julli wa taslimi ak sëlmal ala xayril bariyati ci kaw ngeen ci mi def sallallahu alayhi wasallam kon lii mooy muqaddamatu suxra bokk na muqaddamatul xidma bu doon muqaddamatul xidma mooy lu ñu jiital ci ak liggéeyal yonent bi ngir dañoo ñamali ngir jëm ci ci yonent bi bu dee bii itam lu ñu jiital la ci liggéeyal yonent bi waaye nag téere bu ndaw la am na leneen lu ñuy ñamale ci kanam kon bii moo njëkk muqaddamatul xidma man nga ko wax balaa sëñ bi di taalif muqaddamatul xidma ak kubra fekk na mu taalif suxraa bi moo tax ma di muqaddamatu lii mooy lu ñu jiital a suxraa ci julli ci yonent muy téere bu gën a ndaw am na beneen bu ñuy ñamali anasre ñi def ko ci anamu guy sar fi salaati ci julli wa taslimi ak sëlmal ala xayril barit ci kaw ngën ci mbindeef de waaye lépp dañ koo def ci julli ci yonent bi ak sëlmal ci yonent bi nga xam ne mooy ki gën ci mbindeef yàlla yépp moo leen gën bismillah sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay laa kon bépp mbindeef ci àdduna arrahimi buur bay aji yërëm ku ko soob ci àlaxira wasala yàlla na julli faw allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadim turam mooy muhammad wasalamu tamu sëlmal ci moom tasliman ak sëlmal hasbiya doy na ma ca dëgg-dëgg allahu yàlla moom kott wa nixma baax na amul morom alwakilu yàlla mi nga xam ne moom rek la ñuy wakiil mbir di ko jooyal mu ne gannaaw si nag maa ngi tàmbale ci bismillah ngir di sàmmanteeg hadis yonent bi mu wax ne bépp mbir maam solo mu ngeen di tàmbali te tàmbali ko ci bismillah mbir ma barke mën na caa nekk te barke du ak jëmu waaye jëmu jum nekk ñu xam ko. kon maa ngi tàmbali ci turu yàlla yàlla muy xéewlaa kon bépp mbindeef ci àdduna yàlla muy aj yaram ku ko soob ci àllaaxira maa ngi dagaan ci sunu borom tabaaraka wa taala mu julli ci yonent bi di sunu sang bi. turam di Muhammad maa ngi dagaan ci yàlla mu sërmal ci maamam jullee ci moom man Serigne Touba yàlla doy ne ma sëkk sëkk kooku ayib alquran la hasbiyallahu wa nimal wakiilu jullit bu ne fii rek la war a taxaw yàlla doy la ta nga doyloo ko ndax yàlla mën na laa doy te doo ko doyloo moom la waxoon fa qultu hasbi rabbi waktafaytu bihi ca xaalool kan ba kon nit ki yàlla dana ko doy waaye du doyloo yàlla waaye nit ki yàlla doy doyee nga doy ko bu yàlla doyee nga doyloo ko kooku amatoo sa mbiri bëpp sa lépp yàlla nga koy jébal moo tax sëriñ bi naan xasbiya ci dëgg-dëgg doy na ma allahu yàlla wa neex ma baax na amul morom alwakilu yàlla mu ñuy wakilu de yàlla dong la ñuy wakilu keneen koo wakilu rek daanu ak jeng ci ngay gën a def waaye boo wakilu ci yàlla taxaw ba faw doo daanu mukk loolu da ko jiital ngir tawhid rek bala mu dugg ci julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam yi sos na ma sama wax ci turu buur bi arrahmaani buur bay xëyoo laa kon bépp mi néeb ci àdduna arrahiimi buur bay ajiram ku soob ci àlaaxira inna laaha yàlla wa malaayikatoo ak malaayikaam yi soloona dañuñu sax dàkk di julli ala nabi ca kañu solooka yaa ayyuhal lazina e yéen gaa ñi nga xamee ne amonoo gëm ngeen alquran ne yàlla ca la tukkee ñëw ci yonent bi wàcce ko ci moom saloo na ngeen julli ali ci yonent bi wasalimoo te ngeen sëlmal tasliman ak sëlmal ci yonent bi de mu ne maa ngi tàmbale ci turu sama borom wu sell wi tabarkel yàlla moom nga xam ne ñëpp ci àdduna moo leen di xéwalee waaye mooy aji yaram ku ko soob ci àlaaxira mu indi ayib alquran buy tegtale ne yàlla moo santaane ñëpp di julli ci yonent bi waaye nag ñam ko sant mooy jullit ña ta ñe ca raw nag ñooñu ñoo raw ëdduna ko àlaaxira ña dàq julli ci yonent bi ci seeni waxtu ak ci seeni bëccëg yeeg ngoor yi ñoo raw fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ëllëg yamal xiyaam ñoo raw fa yàlla yàlla ne man ak sama malaaka duñu sëlmal mukk ñun dañuy sax dàq di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag yéen ñi gëm ñëpp bu fekkee déggal ngeen ma man yàlla na ngeen di julli ci yonent bi tey sëlmal lu ngeen man rek waaye daal farata la ci doomu aadama bi doonte benn yoon la sax ci dundam mu julli ci yonent bi sallallahu de kon nag ki muy jëriñ rek mooy ki nga xam ne jullit la de ndax yaa yàlla si la yàlla wax kon yéeféer julli julli ci yonent bi jëriñut ko dara kon nag ñun yàlla ak sunu malaaka ñoo ngi julli faw ci yonent bi te duñ sëlmal yéen ñi gëm dee leen julli ci yonent bi te sëlmal de sëriñ bi dellu teg na la bayka yow sunu borom wuy ci gannaaw ak woote gannaaw bi woote ne yaa yàlla na amoon man wuy naa kon booy jàng xasida gi yaa ngi wuy woote bi yàlla loolu rek lay tegtale la bayka booy jàng xasida gi dafa mel ni borom Touba moo womat sa nos ko di la jébbal yàlla ngay jëfee digleem gannaaw ba yàlla julee ci yonent bi digal ko ñëpp. kon ku ne war naa julli ci yonent bi rawatina ku aji ci borom Touba ndax saa booy jàng xasida rek dafa mel ni borom Touba dafa téye sa noska di la womat di la jëmee ci yàlla ngay jëfee loolu sunu borom digle ci alxuraan la bayka wuy naa la ci gannaaw ak woote rek bi yow wa sax day ko yow mi nga xam ne texeeg aduna ak alaxira wal xayru ak yiw yi kulluhu yëpp bii day nekk nañ ci sa karam de bii day ko nekk nañ ci sa kàttan de abdu ko man borom tuwa ma nekk sa jaam dongu addaxee fi bu dee aji lompañ alamul taju bi aji wéedu jëm ci ab sangam fii saraay cu nekkee ci kom wa dara yi wala ñàkk fii saraay bu nekkee ci mbégte wa dara yi wala lor ilayka ci yow dong la jëm ci yow dong la wéeru jëm xaadiran di aji teew ci waxtu wu ne bayna yadayka sa kanam di la toroxlul de taiban di aji tuub ilayka jëm ci yow bi salaati ci julli ala xayri kulli nabiin ci kaw ki gën ci képp ku yàlla mosa solo wa rasul ak ci kaw ki gën ci képp ku yàlla mosa yónni raajiyan di aji yaakaar bi jaay ci daraja yonent bopp min ko ci yow yàlla insmatan ak mucc min ku li makrohin ci lépp loo xamee ne lu ñu sib la lépp loo xam ne lu ñu sib la min ku li makrohin ci lépp lu ñu sib wa safaran waaye nag ak tuufu bi ku sol ci lépp loo xam ne moo di ak paju aajo mooy li muy laaj xaa ilan di aji wax nag raajen di aji yaakaar min ko ceew nay la di dana amuk sa ngërëm wax xabool ak sa nangul de dafa jek wax na la baykat bi mooy yow yàlla wuy naa sa woote bi nga wax yaay la ci na amuno ndax yow kat texeeg adduna ak alaxira ak yiw yëpp ci sa kàttan lañ nekk sa kàttan rek lañ nekk bu ko defee nag man borom Tuubaa sa jaam dong laa bu feebul bu lompañ bu néew kàttan néew doole lool waaye teeruxut bu ma xamee ak bu ma ñàkk yi yëpp damay wéedu ci yow fu ma toll as sarai ad darai daa nga ko ci alquran allatina yunfiqoon fi sarai wa darai yàlla dafa jeglel aw tagg ñi nga xam ne bu ñu amee ak bu ñu ñàkkee ñoo ci yem bu ñu ñàkkee doo xam ne sax dañoo ñàkk dañuy mel ni ku am jullit noonu la war mel waroon nit ba am rek ñëpp xam ne am nga waaye itam boo ñàkkee sax même dangaa war a wan ne kenn warul laa gis defe ne dangaa ñàkk ba amoo dara suñu borom na ñi nga xam ne dañuy dundale ci waxtu ñu nekkee ci jamono sara yi mooy bu ñu amee alal wa dara yi nag mooy bu ñàkkee manis na ko déggee max naa yu bari waaye ci jafe-jafe rek ak ñàkk jafe-jafe asara yi mooy koo xam ne nekkul ci jafe-jafe ak dara yi mooy ki nekk ci ay mën naa nekk tawat mën naa doon ñàkk man ay bokk yu tawat yooyu yëpp suñu borom ne ñi nga xam ne dañuy dundalee ci waxtu wu nekkee ci ñàkk ak wu nekkee ci am yëpp yàlla jeg na leen aw tagg wu kawe kon jullit fu lu war di taxaw moo tax sëñ bi ne al multaju fii sara iwa daraay ileek yow yàlla damay wiidu ci yow bu ma nekkee ci waxtu koom ak waxtu loraange te mooy waxtu ñàkk lépp damay wiidu ci yow kon wane na daal moom bu ñàkkee ak bu amee kenn du ko xam ndax bu ñàkkee ma nga wéedu ci yàlla bu amee ma nga wéedu ci yàlla am na ci nit ñoo xam ne bu ñàkkee rek la ñu wéedu ci yàlla loolu moom moo ci nit ñi bu ñu amee nag moom fàtte nañ yàlla mu ne nag xaajiran bayan ya dekk waaye fu ma toll di teew ci kanam yàlla di yàlla ndax xam na ne yàlla mu ngi koy fuglu kenn ku nekk booy jaamu yàlla yàlla mi ngi lay gis te yow mënoo koo gis kooku mooy xaadiran bayna yadayka nit koo xam ne fu mu toll yàlla rek lay tàllal ñaari loxom yàlla lay toroxlul dafay teew ci kanam yàlla ba mel ni dafa jël ay tànkam teg ko ci pegg yàlla ndax kuy bàyyi xel yàlla rek doo ko moy waaye képp koo xam ne du bàyyi xel yàlla rek dana tax mu di ko moy mu ne nag may aji tuub di dellu ci yow yàlla waaye nag tuub gi dama koy def di ko jaaree ci julli ci kaw ci yonent bi nga xamee ne mooy ki gën ci képp koo xam ne nabi la moo gën ci képp koo xam ne rasul la ku yàlla jox xam-xamu nubuwa te a la ak xam-xamu nubuwa te la ñëpp moo leen gën mu ne nag gannaaw bu ma tubee dellu ci di julli ci yónente boobu maa ngi yaakaar ci daraja yónente boobu ci yow yàlla ñaar lay yaakaar mooy bu ci njëkk mooy lépp loo xam ne luñ siib la ma mucc ci lépp luy naqaral doomu aadama ma mucc ci insmatan min kulli makruhin ma mucc ci lépp ñu sib ñaareel ba mooy gannaaw bu boobu yàlla di benneel bi mooy wa safran bi kulli soolin lépp lu may wut aduna ak alaxira ma am ko ca na ma ko bëggee te mu dëppook na ko bëggee ñetteel bi mooy maa ngi yaakaar am sa ngërëm ak nangu kon ñeent yi moom la wax bu ci njëkk mooy ismatan min kulli makruhin ñaareel bi mooy wa safara bi kulli sool ñetteel bi mooy qaa'ilan raajiyan minka nayla ridan ñeenteel bi mooy wa qabool te lii ku ko am ñàkkoo dara moo tax mu ne raajiyan yaakaar bi jaay ci darja yonent bi yow yàlla minka ci yow ismatan ak mucc min kulli in ci lépp lu ñu sib wa safaran waaye nag ma am mooy ak tuufu bi kulli sool ci lépp lu may laaj qaa'ilan di aji wax raajiyan di aji yaakaar minka ci yow nay lari dana amuk sa ngërëm waqabool ak nangu yàlla noonu yàlla may ngërëmam ak nangulam mu commencé nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne sunu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sanga bi muhammadin turam mooy muhammad wa ala ali sayidina ak kaw ñooñ sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad salaata ka sa julli alati ga nga xamee ne ta julli nga ko ali ci moom wasalim yàlla nga salmal ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad waala ali sayidina ak ci kaw ñooñ sunu sange mahamadin turam mooy mahamad salaamaka sa sëlmal alla si ga nga xamee ne salamta sëlmal nga ko ali ci moom wàcc yi yàlla na nga ko pay xanaa jëlee ci ñun maaloo xam ne foofu moom un mooy dana yell ci moom rek nan nga ko ko fay jëlee ci ñun mu mel ni ñoo ko def waaye ñun lot nañ ci. yow sunu borom yàlla na nga julli faw ci yonent bii di sunu sang bi turam di Muhammad ni nga jullee ci moom yonent boobu di sunu sang bi turam di Muhammad jullee ko ci waa këram yàlla na nga julli ci kaw waa kër sunu sang bii di Muhammad ñi ne ko gan xeetu julli mu ne sa julli gi ga xam ne julli nga ko ci moom Muhammad yow yàlla julli googu laa bëgg man borom Tuubaa di ko sàkk coow nga dellu julliwaat ko waaye na julli gi yaa ko def waaye maa koy sàkk coow ndax lot naa ci. moo ta mu ne ko sa julli gi nga xam ne julli nga ko ci moom nanga nga ko julli ci moom na nga sëlmal ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad yàlla na nga sëlmal ci ñooñ sunu sang bi turam di Muhammad ñi ne ko gan xëyti sëlmal mu ne sa sëlmal gi nga xam ne sëlmal nga ko ci yonent bi maa ngi koy dagaanaat yow nga sëlmalaat ko ci moom waaye nag day mel ni maa ko def waaye ci yow laa koy sàkku donte man lot naa ko waaye nag moom yonent bi lépp lu yell ci wàllam rek nag ñu ko payal ba tey ñun lot nañ ci fay ko man borom Tuubaa lot naa ci fay ko yonent bi kenn mënu koo fay kon nag yow nag ñu ko fayal rek wàcc yi yàlla na ko pay xanaa ji jëlee ci ñun mu mel ni ñoo ko def maa loo xam ne foofu moom dana yell ci moom lépp lu yell ci yonent yàlla maamoon rek nag ñu ko payale loolu kenn xamul nu mu toll kenn xamul xaaya bi muy daye bi fa mu toll de kon salaatu googu moom la njëkk indi ci xasida gi nga xam ne moo di muqaddamatul suxraa an nasriya fi salaati wa taslimi ala xayril bariya salaatu googu gaa yi baax yi fonk nañ ko lool boo demee ci dalailul xiraat yi bokk na ci salaatu yi nga xam ne indi na ko ci dog bi nga xamee ne mooy bisub dog bi ñuy jàng bisub àllarba kon salaatu googu moom la sëriñ bi njëkk indi te salaatu gu am doole ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin salaataka allati salayta alayhi wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin salaamaka allati sallamta alayhi wa ci anama wa ahlu saa boo ko jullee ci yonent bi dafa mel ni danga sàkku ci yàlla mu julli ci yonent bi sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waxtu wu ne yàlla di julli ci yonent bi di sëlmal ci moom mu mel ni yaa koy def yow mi ko julli ta fekk yàlla moo la koy defal ndax yow lottu ci julli ci yonent bi sëlmal ci moom na ko noonu waxtu wu yàlla mi ngi lay fayal yonent bi ci sa làmmañ waaye yàlla nag moo koy jottali wàccee anama wa ahlu kon salaatu gu am dool la mu teg ci salaatu allahuma salli ala sayidina muhammadin nabil ummi adada man sala alayhi min xalqika wa salli ala sayidina muhammadin nabil ummi kama yanbaghi lana an nusalli alayhi wa salli ala sayidina muhammadin nabil ummi kama amartana an nusalli alayhi salaatu goo xam ne boo koy julli ci day mel ni mboolem jullikat yonent bi yi ñu julli yëpp yaa ngi koy julli allahuma yow sunu borom noo lay ñaan salli yàlla nga sax dàkk di julli ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad annabiyu mooy ku ñu soloo ko al umiyu mooy ko jug umiyu aada dama limu lu toll la nga xamee ne salaat julli nañ ko ali ci moom min xalqika ci say mbindeef wasali yàlla na nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turo mooy muhammad annabi mooy ku ñu soloo ko al umiyu mooy ko jug nday kama yendixi comme ni nga xamee noonu la yellee lanaa ñeel nu annusale nuy julli ali ci moom wasali yàlla na nga sax dàkk di julli ala ci kaw sunu sang bi muhammadin turo mooy muhammad annabi mooy ku ñu soloo ki al umiyu mooy ko jug umiyu kama amartana comme ni nga ñu diggalee an ba ba ñu julli ali ci moom ba tey mu yow sunu boroom yàlla na nga julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad mooy nabiyu mooy ki nga jox xam-xamu nubuwa mooy ki nga solo mooy al umu mooy ku juddu jàngut boo bindee du ko mën a liir ëpp ñëpp xam-xam ko mooy umu yu mooy koo xamee ne yàlla da koy yónni ci mboolem arab yi gannaaw bu mu ci seen biir itam boo bindee leetar jox ko du ko mën a liir ba itam mantu bind ba noppi ëpp ñëpp xam-xam kooku mooy umu moo tax waxoon naa la koo wax umu yi ku dut ab yonent da nga koo xas ndax umu yi boo tiimoo nit ki na ko cëm xamoo dara mais am na ñoo xam ne boo leen ko xool mel ni ni leen sax waaw borom xam-xam dëgg boo ko xamoo dara tabaarakallah am na ci ñoo xam ne dañuy gis seen bopp ñi nga xam ne yegguñ fenn boo leen xamu leen dara rek dañuy gis seen bopp waaye ki yegg fenn sa ci xam-xam sax boo ne ko xamul dara mën naa bañ a gis boppam ndax moom xam na fi mu yegg waaye tabaarakallahu koo xam ne moom yeggul fenn ci xam boo ko xasee na ko xamoo dara xas nga ko xasu rëy ndax dafa fekk nag kon xas boobu da koo jegoo ndax xamul dara moom ci boppam sax bi nga ko xamee xamoo dara moom xam na ne xamu dara. kon nag yonent bopp mooy umu yi mooy ko jóg umu yi ñu ne ko julli gi ni muy toll mu ne limi ña nga xamee ne julli nañ ci yonent bi ci say mbindeef salaatu gi boo ko jullee day mel ni mboolem ku mos a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam julleem googee bi nga waxee salaatu gi rek mel na ni julleem googe yàlla fay na la ko ku mos bi yool bu toll noonu yàlla da koy jël jox la ko moo tax mu ne man salaam ali li muy ñi julli ci moom ci say mbindeef ñëpp ci nag waaye nag yàlla na ko julli ci yonent bi di sunu sang mooy ki nga solo mooy kojug comme ni nga xam ne noonu la ba tey ñiy julli ci moom ni nga xam ne la yellee mboolem yàlla da koo sant muy julli ci yonent bi te yonent bi yeyoo na wa anta bi mat yika salaati jadiiru sëñ Tuubaa nee na ko yàlla moo ko santaane ñuy julli ci yonent bi mu ne ko moom noonu sunu borom ba tey yàlla na ko julli ci yonent bi di sunu sang turam di Mahmad mooy ki nga solo mooy ko jug umuyu julli gi ni muy julli gi ni mu ne daal julli gi mantu amapp kama amartana an nusalli lii di comme nit ñi sant ñu julli ci moom rek na nga jullee ci moom noonu ba foofu rek kama amartana comme ni nga ci diggalee daal an nusalli nii julli ali ci moom na ngay jullee rek. kon julli la goo xam ne képp ku ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem ku mos julli ci yonent bi ci la wéy ak ci luy dikk ak ci lu teew payoor gu toll noonu am nga ko naka noonu tabaarakallaahu lépp loo xam ne sun ay jullit lañ te ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi yeeyoo julli ya boo jullee julli gi day mel ni julli yooyu yëpp yu jëmee bi sallallahu alayhi wasallam julli nga ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu kuy julli ci salaatu gi day mel ni mboolem ni ko yàlla santaane te bëggee ko noonee mel na ni yaa ngi koy jullee noonu yëpp ci saayir ak baatin salaatu gi moom it miin nañ ko lool di salaatu goo xam ne képp ko xëy wax ko fukki yoon sun borom dana yëkkati jëfëg ki ko wax saa bu xëyee mu wax ko fukki yoon ka xamali ahlil ardi mboolem ñi nekk ci kaw suuf di jëfal yàlla seen jëf jënam tollu moom ki wax salaatu ala nabi gi fukki yoon sun borom dana yëkkati jëfam ja dana yëkkati tiyaabam dana yëkkati aw yiwam ba mel ni mboolem jëfi ñuñ suuf yëpp. am na ñoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sax na yonent bi ci boppam moo wax ne képp ku wax salaatu ala nabi gi allahumma salli ala muhammadin nabi umi adada man sala ali min xalqa ba ila aqri salaatu fa innahu yarfau li qaa'ili kullama asba asara maratin ka amali ahlil ardi saa boo xëyee wax ko yoon dégg nga dafa mel ni ka amali ahlil ardi jëfi ñuñ suuf ñëpp yàlla dala ko yëkkatil kon loolu def naa ne yiwu ci nekk kenn mëntu xam nu mu toll kon salaatu gu am la kon salaatu googu bàyyiwut dara saa boo ci jullee day mel ni ni yàlla bëggee ku ni julli ci yonent bi ak ni ko yàlla santaane day mel ni julli nga ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mboolem mbindeef yi julli ci yonent bi lim du toll nekk ci kaw suuf ñëpp lim bu toll noonu day mel ni jëf yi ñuy jëf yëpp ci julli ci yonent bi sallallahu mel ni yow mi wax salaatu gi rek fukki yoon ba nga xëyee suñu borom may na la yiwu toll noonu mu jàllat ci geneen salaatu ne allahu yu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla na nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadim turam mooy muhammad waa waala ali ak ñoo ñëw sama bi ak saabaam yëpp salaatan julli goo xam ne taxfiru da nga jéggale lii ñeel ma bihaa ci sababu julli googu jami xamaam mboolem la nga xamee ne xattara toq na ci samam xel ma ak loo xamee ne yaxturu dana toq bi baali ci samam xel mi maa ci loo xam ne laa tuhiboo bëggoo muy toq ci sama xel wala tardaahu te gërëm loo ko lii ci man muy toq sama xel wasalim yàlla na nga sëlmal ali ci yonente bi salaaman sëlmal goo xamee ne tusallimuni da nga ma musalee bii ci sababu minal listiqaale ci may yittiwoo may soxlawoo bi ma laa yax nii ci loo xam ne du ma jëriñ mukk ci àddina ak àllaaxira abadan faw te sun borom yàlla na nga julli ci yonent bii di sunu sang turam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla na nga julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp julli goo xamee ne ci sababu julli ko ci nga may jéggalee mboolem loo xam ne ci jamono jii nga xam ne tew naa toq na samam xel te bëggoo muy toq samam xel te gërëmoo muy toq samam xel ndax mbindeef bi saa bu am na luy rot ci xelam am na lu ciy toq te loo xam ne yàlla bëggul ko gërëmul ko loolu yëpp ay saytaane la ay abatil la ay sikk sàkk la yàlla nañ ci yàlla musal loolu nag la cëpp mooy jàmm bi sàggan rek lay dal waaye jàmm bi nga xam ne waxtu ne day xeex ak xalaatam di ko daggi di dellu ci borom ta taala di tudd yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu wu ne rek même buy naloo sax yàlla day toqal ci xel mi loo xamee ne moom jàmm bi yàlla bëgg na ko mu bëgg ko waaye itam yàlla gërëm na ko te jàmm gërëm ko te fekk yàlla bëggul ko dana am lu toq ci xelam su ko defee te fekk yàlla gërëmut ko te ñaareel jàmm bi luy toq ci xelam rek lay bëgg cërëm ñi di ko di ko def ci waxtu wu ne ndax bànneexam ci lay topp bu fekkee lu wuuteeg bëgg-bëgg yàlla ak ngërëmal yàlla waaye jàmm bi itam su fekkee dafay nekk ci luy neex yàlla te bëgg ko léeg-léeg bu yàlla toqulee cim xelam dara rek day mamu rek tàggat cër yëpp ñu ànd ci di jëfee loolu moo tax mu ne sa saw bu julli googu ci nga may jéggale mboolem loo xam ne toq na ci samam xel te bëggoo ko wala gërëmoo ko ci man wala loo xam ne lu mu yàgg-yàgg dana toq ci samam xel te bëggoo ko ci man muy toq samam xel waaye bëggoo ko itam tabaarakallahu muy toq samam xel yàlla loolu yëpp ci nga ma koy jéggalee kon boo waxee salaatu gi day mel ni mboolem li toq sa xel te yàlla bëggul ko wala loo xam ne dana toq sa xel ci luy ñëw te yàlla bëggul ko te gërëmut ko sunu borom dana la ko jéggal moom muy aji jéggale ji waaye yàlla na nga sëlmal ci yonent bi sëlmal goo xamee ne ci sababu sëlmal googee ci nga may musalee ci may soxla loo xamee ne amut ci man benn njëriñ ndax saa bu nit ki xëyee bi mu ngi dox ci loo xam ne yàlla gërëmut ko ba jant so am na ko xamee ne kerek bi mu xa bi mu yeewoo ba ba muy tëdd diggante boobu yëpp lu mu fi dox lu mu fi wax yëpp xeeti bàkkaar la amul benn njëriñ yàlla na ci yàlla mu ngi ne ab julit la dana juli dana nangam waaye booy xool lim dox ci surne bi yëpp dara neexul ci yàlla mu ne yàlla na nga sëlmal ci yonent bi sëlmal goo xamee ne ci saw bu sëlmal googee ci nga may musalee ci may soxlaaloo loo xamee ne maanaam duma ma jëriñ ndax yonent bi dafa wax ne bokk na ci li rafetal islaamu nit ki bañ naan kii kat diw kat ku am lislaam la ku rafet lislaam la mooy lépp lu amul njëriñ nga ne ko ñukk wan ko gannaaw kon li waral nit ki daal euh, lislaam rafet na mooy foo ko fekk rek mi ngi ci jëf yu baax yi kon mu ngi noonu yàlla na ci yàlla xirtal kon nag yow sunu borom yàlla na nga julli ci yonent bi salaatan julli goo xamee ne taxfiru da nga jéggale lii ñeel ma biyaa ci sababu julli googu jami xamaa mboolem la nga xamee ne xatara toq na ci samam xelaat wamaa yaxturu ak loo xam ne dana toq bi baali ci samam xel mi maa laa tuxiboo ci loo xam ne bëggoo muy toq samam xel wala tar daaw te gërëmoo ko lii ci man itam muy toq samam xel wasalim yàlla na nga sëlmal ali ci yonent bi salaaman sëlmal goo xam ne dang musalee bii ci soobu sëlmal googu min al istiqaali ci may soxlaal loo bi ma loo xam ne laa yax nii du ma abadan faw fu ma nekk daal naay soxloo rek ci loo xam ne daf may jëriñ